Este es tu muy e n h الحمد لله سنتني يا الله بوخ ده يا الله يوم بلال نيو لين خم من ملذن ساق أما ين بيربي يوم خم نجستن في متر يبري متر خلني أمكو مي في أومي أم نيندو مي دني سنتي الله بس كلي لمني ملذن كوبني أمكو Euh, su ko defee nag euh, euh, defe naa ni ñiy jëriñoo teen bi ñoo ci gën a mën a wax ñun moom dañuy ñëw rek seede que ne liggéey bi pare na ba mi ngi nii alhamdulilah su ko defee dañuy jox kàddu gi ñu fi dëkk. lu am solo ngeen fi def ndox mënul ñàkk surtout situation yi ñu nekk indil ngeen ni joyau ñu ngi leen di wax ne joyau bi daañ ko préserver ndax ndox moom c'est une denrée qu'on ne peut passer moom ndox kenn mënu ko ñàkk ci àddina surtout nag fi ñu toll muy lew na. nga xam si ne nit ñu bëri incha allah seen xel dana dal bañ ko gasee fii te fi ñu ko def aussi mooy xolu lew na jërë ngeen jëf yal na leen yàlla gën a dooleel ba seen action yi gën a bëri ci nit ñi ndax réew mi ni toll réew moo xam si ni boo jëlee presque téeméeri juróom fukk yi ak juróom wala juróom benn fukk yi ak juróom mënuñu seen bopp yii dana nekk danu leen mën a dimbali bañ ci def ay yeneen activité génératrice de revenu ngeen baal ma ci kàddu yi loolu laa amoon ci li ma toog ñaar fukki fan du dëgg du ñu am xootu ndox benn nit moo fi am teen boo xam ne toolu rooseem la woon day tëj toolu rose ba ni waa dëkk bi nañuy dem ñuy fay seen sareeti mbaam yi euh, fukki bidoo 1000 francs ñu dem duy ñëw am nañu fay rang ba jant bi so waaye yéen dañ leen di ñaanal yàlla ki nga xam ne moo sàkk ndox mii andi ko ci askan wi ak yéen ñi koy teewal ak yaatal gi ngeen ko yaatal ak nangu gi ngeen nangu ak yewenal gi ngeen ko yewenal ci biir askan wi borom tabaaraka yal na leen fay ndax ñàkkoon nañu ndox torop kon ñu ngi leen di ñaanal fan wu gudd ak wér ak bërsëg wu yaatu lool lii xéewal ci ndox lépp ci àdduna nag yal na ko yàlla baawaanal ci seen kaw. Donc nous voilà aujourd'hui ce matin à Léona. Euh, Léona est à quelques kilomètres de Louga. Donc on est là pour procéder à l'inauguration du puits qui est dénommé Saint-Étienne 2, Badel Oued 2, donc, euh, qui a été financé par l'association Au Pain et Sourire. Alhamdulillah, donc on a euh, atteint la nappe, donc on a trouvé l'eau est très abondante, mais aussi euh, l'eau est douce. Donc nous demandons à Allah d'agréer cette œuvre, de considérer cela comme un sadaqatul jariya. Et nous espérons qu'avec la réalisation de ce puits, ceci va contribuer à diminuer de manière drastique la souffrance des populations et va améliorer leurs conditions de vie. Donc puisse Allah agréer cette œuvre. Euh, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa